macha allah la hawla la quwwata illa billahil alil azim ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte ak xol bu sedd ci njataay bu màgg bi nga xam ne yàlla suñu boroom baaxee nañu ci kàttanam bañ teewe ko ba doon diglu xale bi doon tari alxuraan di jiital ci nuyoo bi Serigne Bara Bousso moom Serigne Makhtar Aliou moom mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko ndokkeel day am mbégte bu baax ci jataay bi nga xam ne mu ngi koy eh, teewee waaye di nuyu mbooleem waa kër Serigne Birahim Ndiaye yëpp ci njiital Serigne Mamor mi fi jóge léegi ak Serigne naa moom Serigne Aliou mu leen tuddee rek mel na ne yóbbaale nañ mbooleem waa Kër Sëriñ gi yëpp ci seen teewaay bu rafet ci yitte ji yitte bu alxuraan ba toog ci jataay bi di nuyu bu baax sëriñ Abdou Ahad Niang baay Baye Dame Mbaye sëriñ Moustapha Bousso ñoom ñëpp ñu ngi toog ànd ak ñun ci liggéey bi ak mbooleem mbokk yëpp ak xarit yëpp ak wóolër yëpp kàddu yi xam naa du bari euh, kàddu yi cant lay doon ak ay seede ci xale bi doon tari ak ci soxna Ndeye Fatou mi nga xam ne doon na ko jàngal ak leen ci ay kàddu yu mu bëggoon ñu yëkkatil ko ko jàlleel ko mbokk yi fi teew yëpp xam naa buñ ci jógee euh, sëñ Abdou moom lañ jox kàddu gi su ko defee euh, ñu mën a jox ki ñu jox euh, saxaada bi mu daal di mën a jeex ñoo sant yàlla bu baax di xamle soxna si doon tari léegi di soxna maam tuuti Mbàkke doon jàng ci loxol soxna Ndey Faatu la ñuy seede ne ginnaaw bi nga xamee ne soxna Ndey Faatu Silla jàngal na ko ba wóolu ne mbokkal na dana ko indil ñu saytu ko euh, bi mu ñëwee teel lañ ko kaamil bi macha allah mu tari ko tari bu rafet tari bu set tari bu sell boo xamee ne xëy na lii nii da doon motte rek kaamil bi ak di ko gaaral ay mbokkam mu nekk ab soññee ci mbooleem ku fi toog waaye diglu nañ ko ay yoon yoon ba gis na ne macha allah wattoom dëgër na di ñaan rek mu sax ci moom te barkeel waaye nag ah, alhamdulilah ndax su ma jumul eh, yaayam yaakaar naa jaar na fii yaayam jaar na fi ab soññee la ba mokkal alxuraan kon bu amaatee doom mu toogaat mokkal alxuraan loolu ndam la ndam la ju rëy nekk taraanga ju rëy nekk ab soññee mokkal alxuraan taxawu sa doom ba mokkal alxuraan loolu yombut yombut euh, rawatina soxna maam Khady mi nga xam ne ci lu xam la nekkoon moom it mu def ci yitte ju lool fonk ko lool dama amaan mbégte bu baax ci bis bi euh, bi ñu déggee bànn annonce bi euh, dama ne ah kii dem bëgg na alxuraan am ku ne waa kii moom fonk te xayma di ma ne ko ah, da nga naan bëgg na alxuraan ndax euh, bëgg àdduna ak bëgg alxuraan bokkut lu baax dañ koy dañ ko war a siiwal dañ ko war a tasaare dañ ko war a xamle am na ñoo xam ne buñ amul bisu bisub buñ amee bisu alxuraan dañ koy roye lool dañ koy rus wax sax dañ man dañ am kersay wa maanaam yëgle ko bu ñu amee beneen bis nag dañ mën a dañ am feerte ci yëgle ko yëgle ko ñëpp lu xar bi ñëpp woo ñëpp téléphone séwal ko lool duñ ci am benn kersa buñ gisee nag kuy yëngu ci alxuraan di ko siiwal ñu bëgg na ah moom kat nangam déedéet daa bëgg alxuraan bëgg lu baax alxuraan diine nangu na fésal nangu na yalu fésal ci kaw nga jublu ci ak soññee fésal ngir jublu ci lu yaatal ak taaral loolu islaam da ko nangu bu baax a baax yaakaar naa ñi fi toog ñëpp xam nañ loolu kon nag lii mooy taaru diine munta woote bis bu gën a màgg bii munta woote bis bu gën a kawe bii munta am tamit ndam lu sut lii ndax sëñ tubaa dëkkam bi da ko sancoon ngir jàng ak jàngale kon moom bu taxawoo doomam ba mel nii man de dama cee am bég lool lool yàlla xam na ko yàlla xam na ko dama cee am mbégte lool dama naan bis bi moom ñëpp ko war a taaral waaw ñëpp ko war a solol taaral ko ndax lan jëmmi alxuraan ak jëmmi bis bi loolu rek lañ ci am euh, kon ñoo ngi koy sant loolu mënu ko war a ñàkk a wax ndax dama dama dama cee bég ci moom ci ni mu ko ni mu ko ni mu ko jàppee ak ni ko yaatale soxna Ndeye Fatou Sylla nag moom muy nekk soxna su baax soo xam ne yàlla dogaloon mu jaaroon ci suñu loxo lii nag ñun muy ab sant yàlla bu rëy ak di ñu gën a soññ ndax mënoon naa génn ci daara ji mel na neen rawaat ne mu jigéen am beneen taxawaay waaye ba amaatee ab taxawaay di jàng baal alxuraan ba mokkal lal ay nit ñuy tari loolu ndam la ndax yaakaar naa bii mooy ñaareel bi yoon muy tareloo jigéen alquran am na keneen ku jiitu woon loolu nag ndam la ci mboolem ku yëngutu ci diine ab soññee bu baax ci ñun ndax dana tax ñu xam ne liggéey bi kat réerut mu soññ waat ñu bu baax a baax ñoo ngi koy sant di ko di ñaan mbooloo mi sëriñ baara ñu ñaanal ko ndax jigéen la ju baax ju bëgg lu baax te nekk ca la war a nekk loolu moo waral mu liggéey liggéey bu màgg bi ba mën a am lii mu am tey te ku ne xam na ne jàng di dellu ca kër ga ba mokkal ci yombul ku ko def rek dañ jàpp ne am nga programme bu baax am nga njàmbaar ju réy rëy kon ñoo ngi koy sàkkul ñaan ci mboole mbooloo mi ñu ñaanal ko mu amoon nag ay kàddu yum yum waxoon mm, ko ko jottalil xam ngeen ne sëñ Ousmane moom nit la ku baax koo xam ne kër gii di Son Excellence di jàngalee kërama la ma ci gën a yéem mooy kër goo xam ne danga fa nekk sa njaboot nekk fa nga fat fa daara te sakk woo ci dara loolu yombut am na ñu bari ñoo xam ne boo doon loué ba ne daara rek dinaa la déedéet dangay yàq sama kër am na ñoo xam ne mënuñoo supporter coowul jàngum daara ñu bari bari seeni kër tuxu nañ ngir dañ fay jàngale soxna yaag ak ñenn ci kër di di xultu ak kaas ba mujj sax kooku day xat génne génn génne daara ja kër ga kon nag moom def na lu rëy jël na alxuraan yor na daara di jàngale di jàngale ay doomam jël nit jox ko mu nekk ci biir këram di jàngale loolu yaakaar naa yombut ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal ak sëñ Murtada Ndiaye mi nga xam ne moom sëñ Mbàkke moom it am ay taxawaay yu yu am solo ci soxna Ndeye Fatou Sylla ci bi mu sanci daara ji ci ak jàppam ak jàppaleem ci yu bari ba lii taxaw kon ñooñu mënuñoo ñàkk tudd leen sant leen ñaana leen waaye ku wax boroom kër wax soxna ndax sëñ Ousmane lu mën a baax baax lu bëgg alxuraan soxna Bintu ak ñam fa nekkal su fekkoonte ne léegi loolu neexu leen yaakaar naa Ndeye Fatou Sylla su amee weer tuxu ndax danañ ko buntu xataal danañ ko ñooru danañ ko wax yu sew a sew a sew yoo xam ne mujj rek génn. waaye jigéen la gu baax goo xam ne fat na ko jàpp na ko jàppale jàppale daara ji bu baax a baax ba lii ñu am tey ci ndam li ñu mën ko am kon dafa mel ne rek cant gi day bànqaas yu bari yu boole seeni xalaat seeni doole loolu ma waral lii mën a am tey waaye tamit muy sant bu baax a baax waajuram soxna Ndeye Diané di ñaanal baayam seen daam sit la yàlla na ko yàlla dolli ak leer ku ko xamoon xam ko ci alxuraan xam ko ci daara xam ko ci jàngale ba yaakaar naa ñu baree bari wat nañ ci ay lu xam moom it wuuf na ko jàpp na ko jàppale ko ndax ñu ëpp ci seeni doom buñ dee ubbi daara di jàngale yow waajur wi sax dangay ngay mën ne da ko rus a wax ah ma nga ci daara je mel na rek lam nekk daa baaxul ak di ci génne kon moom jàpp na ko jàppale ko ba lim bëgg taxawal mu taxawal ko bu baax a baax waaye di sant mbooleem waa kër yépp yëpp mu Moutaba ak sëñ Abo yaakaar naa ñu ngi ci biir jataay bi ak mbooleem soxna yëpp soxna yi waa kër ga yëpp ñoom it jàppale nañ ko lool fonk ko lool taxawu ko lool ci mbooleem lu mu taxawal ci lu baax ak ci lu man doon rek day mel na ñoom sax ñoo ko gën a bëgg loola dagg seen yitte dagg seen lépp ànd koog moom ba bis jeex tàkk fi may daanale mooy waajuru xale yi nga xam ne ñooy jàng ci biir daare Soxna Ndeye Fatou Sylla ñoom it ñoo ngi leen di soññ bu baax ci seeni taxawaay ci seeni jàppale ndax jàngal dafa bëgg nañ xale yi di jàng heure di wàcc heure tey bis yu baree bari yoo xam ne danga naan kii dama doon balee sama yaay walla nangam ñu wattaniku ko jàng di ñibbi temps bi bariwul loo ci dolli da nga gàllankoor njàng ma kon nag ñoom ñi nga xam ne seen doom ña nga fa nañ xam ne ndeefaatu lu baax dong la bëgg moom nag ku am fulla la ak fayda nag waaye lu baax la bëgg nit nag su bëggee lu baax ci am njàngam bu sa xalee jàngut mu woo la soññ la dàq ko dangay jàpp ni kii daa amul kersa. aha fekk na moom daa bëgg lu baax bëgg jàngal sa doom te bu deful noonu xale bi du jàng ndax nit ñi moom ku leen bàyyi ak seen sago rek ñu daanaka duñ jàng dara dañ jàpp na rek daara dañu dem ak ñëw. kon loolu mbooleem ko fa sa doom nekk xam ngeen ne lii nii yombut ku mën a jàngale la. ku ca nangoo sonn la bu leen ko bàyyi ak seeni doom am naa yaakaar ne bu ci àndeek dogalu suñu borom bis bii sone si am amaana seeni njaboot am ko te li nga xam ne moom ngeen warloo ak moom ci muy xaddiye ji ngeen koy jéem a matal seen kem kàttan man sax dama ne ko li ngeen di laaj dafa tuuti lool dafa néew trop ku bàyyi téem jëpp nekk ci benn barab teel la sa xale suba ba ngoon mënoo ko fay am na ñoo xam ne lan lay lan lay jox muy téeméer wala ñaar téeméer dañuy jàpp ne jox nañ la adduna ak la ci biram boole ko ay kàddu yu xaw a doy waar boo xee damay fay rek alxuraan kenn mënu ko fay kenn mënu ko fay ki bàyyi téem jépp nekk la ci kooku danga ko war a jàpp war koo taxaw kon mu ngi ñaan mbooleem njaboot gi ñu jàppale ko ci wàll googu jàppale ko itam ci waxtu yi ñu koy fonk di ñëw incha allah rabbi bu loolu amee rek amaana lañ ciy bëggoon dana ko am di sant mbooleem dëkkandoo yëpp di sant mbooleem waa ji di sant mbooleem koo xam ne xarit nga baa ngay soppe baa ngay wólëre amoon na yéene kenn ku nekk mu jël kàddu jaar sawtur sant la gërëm la waaye ku ne xam ne loolu moom yombut waaye yàlla moom mi nga xam ne gis na lépp te dara ump ko lu waaye def ci lu baax xam na ko ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom fay leen aw yiw nu ci waaye man di jàppe ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wàcc fii suñu kàddu di ñaan yàlla lépp loo xam ne euh, juum na ci kàddu yi ñoo ngi koy jéglu te xam na rek lu baax rek lañ ci bëggoon di sant mboolem soxna yi nga xam ne ñoo doon téel xale bi soxna Oumy Ndiaye soxna May Cissé soxna Mam Bousso soxna Antaloo ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp ñoom ay soxna lañ yoo xam ne soxna euh, Saaxo soxna Barakatu ñoom ñëpp di ay soxna yoo xam ne jàmbaar ndax boo gisee ma leen tudd mooy ñii ñëpp ñu ngi ay daara soxna yi toog. kenn ku ci nekk soxnaam euh, Oumy Ndiaye mii bis bii Ndeye Fatou def def na ko doomam yoo xam ne moo ko dalal baa siin miim jàngal ko ba mu makk alxuraan tari tari ba rafet comme bis bi yaakaar naa na Abdoulaye Niang ñu fekke woon na ko toftate ñaneen soxna may mun a siise mais di doon bàjjen may moom it daara la yor jàngal na jigéen ba mokkal moom it jamono yi weesu kon ñoom ñëpp ay ay jigéen lañ yoo xam ne dañuy jàngale di mokkalal ay soxna ni ñoom kon nag war nañ leen a ràññee ñaanal leen waaye mu nekk ab soññee ci seeni moroomi soxna yi ñu xam ne jigéen moom su baaxee am nañ yaakaar adduna mën naa baax ndax ñoom ñooy yar ñooy toppatoo kon loolu laa bëggoon na daaneel xam naa li ma fàtte nag ngeen jéggal ma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sant yàlla sun borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi am mbégte njëkkati kàddu yi di sant bu baax tey jéggalu nag xaj na jotaay bi yàgg na yàggaay boo xam ne jombul kàddu yi du mën a gudd dañ koy tënk kàddu yi ñuy yëkkati nag kàddu yoo xam ne ñi ngi koy yëkkati ci turu suñu mbokk di suñu xarit di sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy waajuru soxna maam tuuti mi moo waroon a ñëw ci jotaay bi <clears throat> waaye ngant lii gaar doomi aadama daf ko gaar amoon na yitte lool ci teewee jotaay bi ndax ñuy teral sa doom ju mokkal alquran nit deful ci kaw suuf teewe jotaay bu gën booba ba tax na kon lu ko gàllankoor ba ñëwut rek xel mën naa jàpp ba xam lu mu doon da lépp lañ mën a leeral waaye li ma mën a wax rek mooy am na ngànt ci teew tey waaye bu amutoon ngànt moo mooy jiite jotaay bii bi mu déggee ne maa ngi ci jotaay bi nag mu mel ne kon sama teew ci jotaay bi mën naa wotte ak teewam moo tax kàddu yi ma yëkkati maa ngi koy yëkkati ci turam li ñuy tàmbalee kàddu yi mooy di sant yàlla bu baax ndax lu mel nii sëñ Fallou mi ngi koy wax léegi euh, yombul doom ju mokkal al alquran ci góor sax dafa jafe waxumala ak jigéen ndax yi gàllankoor jigéen dafa gën a bari ci yi gàllankoor doom ju góor kon jigéen ju mokkal alquran sëriñ tubaala suñu borom defal teraanga ci alquran ba tax na ci njabootam ñi ci mokkal alquran cay dooni gone yàlla da cee def tawfiq ba tax na kon soxna suñu doom ji ñu ngi ñaan suñu boroom mu baril ay kemam soo na maam tuuti ñu ngi lay sant bu baax ci sa turu waajur wu góor di ñaan suñu borom yokk saw fan guddal saw fan may la wér-gi-yaram alquran ji nga xam ne moom nga ñu doon moom nga mokkal doon ko gaaral léegi yal na ko yàlla saxal ci sa dënn ba nga def ko ci sa sa njaboot ba nga def ko ci sa njaboot ñi kaddu yu la jëme ci suñu doom juuju kàddu yu ci tegu mooy kàddu gi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy sant mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na seen loxo dugg ci li tax jotaay bi mën a am ñu cey jiital nag yaayam ji nga xam ne moo ko yoroon ci barab bii di soxna maam xari sëriñ Cheikh Abdou mi ngi sant bu baax taxawaay bu rafet bi ci soxna si taxaw ndax gone gu jigéen guy jàng alquran di jàng di ñibbi nekkul ci barab boo xam ne dafa féete laaj na taxawaayu ndey ju am pësteef ci njàngam kon taxawaay bu rafet bi ci soñ soxna maam xari taxaw moo waral résultat bi feeñ tey ba tax na soxna maam xari dëgg la ci sa doom nga doon soñ ndax dërëm bi génnul gaal gi waaye nag cant gi sëriñ Cheikh Abdou li la sant cant la gu ñàkk ndax sëriñ Abdou Qadir Mbacké neen day wax ne bu nit defee dara ñu war koo sant ñu ne maanaam nit ki loolu daf koo war waree su ko caa sant Sëñ Abdou Khadir ne ah kay ki def lu ko war warees na koo sant ngir xool kam war te kon nag am nga sa cantu bopp goo xam ne dañuy ñaan li nga ci doon def lépp mu nekk aw yiw yàlla na ko yàlla fay ci sa njaboot. di rafetlu bu baax taxawaay bi di ñaan suñu borom guddal fan bi te wéral yaram bi ginnaaw bu ñu santee soxna maam xari moomu sëriñ bi mi ngi sant soxna maam soxna Ndey Faat Silla mi nga xam ne moo doon jàngal. soxna maam tuuti soxna maam tuuti mii soxna Ndey Faati xaj na cant gi bi waroon a yëkkati mu jóge ci làmmiñam gënoon na diis kàddu yi may joxe waaye fa ma ca mën a yam moom lay joxe ndax jàngal sa doom ba mokkal alquran mbégte féetiwu ko kaw ndax doom ju mokkal alquran ndam lay doon ci waajuram ëllëg yawmal am borom borom achaati bi ma ngi koy junj ca biir xasidaam ga ndegam ki mokkal alquran ay waajuram dañ koy teg ca kaw yow xiyaam ki def alquran ci sa doom mënatu ko fay ba tax na kon soxna Ndeye Fatou Sylla sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax a baax di ñaan suñ borom guddal saw fan te wéral saw yaram te baril say kem ndax ku mel na yow jigéen ju mel na yow moom la sëriñ Touba di ndamoo kaddu yi may wax nag kaddu la joo xam ne nii da koy yelloo moo tax ma wax la ko jigéen ju mokkal alquran di mokkalal ay nit alquran loola te te fi mu koy defee dafa am solo ndax mokkal alquran fépp la baax waaye daaray cos ñi nga xam ne dañ caa cosaanoo nga xam ne buñ mokkalee mën nañoo mokkalaat ñeneen ñooñe liggéey bu rëy nga ca def defoon nga ko ci koo xam ne doom la ci yow su ma jumut muy doomi sëriñ maanaam euh, sëñ maanaam koo xam ne sëñ daam sëñ bay bay daam moo moo si doomi seexu naa maanaam jat bàjjan la ci moom mu def ci moom alquran ñi ngi ko doon digloo ci kër sëriñ Cheikhouna Bousso mii kii doon ku ko ñaareel kon sëriñ son sëriñ Cheikhouna soxna Ndeye Faty mii liggéey moom tàmbali naa fees ci dëkk bi mokkalal nit alquran lu jafe la ci góor waxuma la jigéen ndax yi gàllankoor jigéen dafa gën a bari ci yi gàllankoor góor kon soxna Ndeye Faty day ñaan suñu borom wéral yaram bi te guddal fan wi te baril say kem bu baree ci dëkk bi rek li ñu soxla woon ci njaboot gi dana sotti li ma ciy mujjee nag ci yow mooy Euh, dégg naa fii léegi sëñ Cheikhouna wax ne euh, daara ji daara ji gise soxna Ndeye Faty doon jàngale mi ngi nekk te loolu xam naa ko dama koy wax rek ci kër sëriñ bay Ousmane Ndiaye fi la daara fi la daara ji nekk waaw daara juju euh, muy daara joo xam ne borom kër moo tabax këram boole ci daara ji maanaam yaatal fi yaatal fi soxna si mu fay jàngale man damay wax ne tawfiix ji suñ borom defal sëriñ Touba moo waral li gàllankoor yi bari bari bari gone yaa ngi mokkal alquran li gàllankoor yi bari bari bari jàngalekat yaa ngi jàngale alquran daara yi dañuy weta ñaamu te déewul téewul ña ngay def résultat léegi waaw duñ soppi xalaat yi fexe ba ñii nga xam ne ay ndaw yu jigéen lañ te bu ma ko waxee ci ndaw yu jigéen ñi wax naa ko ci képp kuy jàngale alquran ci tubaa ñu fexe bañ am daara yu baax tabax ay daara yoo xam ne xaalis bu ko tabax mi ngi fi Pastef bi moo des ak organisation kon soxna si damay joxe benn misaal soxna si di soxna Ndeye Faty tey ku tabaxoon jenn daara ju mag def saytu ba ca war lépp dugal ko ca daara ji ne ko jàngaleel alquran te li ko war lépp ñu di ko def ñaata lan lay feeñal ci résultat kon ndegam gàllankoor yi rek mi gàllankoor maanaam fi mu war a taxaw taxaw fa di feeñal résultat yi naka moom buñ tabaxoon daara ba la fa war a nekk lépp nekk fa ñu di ko saytoo nam waree nan lay nan lay liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla defal na ko ci njabootam alquran daara yi dañuy soox li ci ëpp dañuy soox waaye fuñ dem raw fa gone yaa ngi mokkal alquran mokkal goo xam dafa jéggi dayoo kon soxna day fàtti maa ngi ñaan suñ borom tàggat ku yàlla jox dara mu ñëw tabaxal la daara ci dëkk bi tam jege lool te la ca war lépp mu def ko su ma ko ñaanee ci soxna Fati ñaanee naa ko ci soxna Ami Cissé ak soxna Ummi Njaay mii ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy jàngale alquran fi may tëjee kàddu gi nag mooy di sant sëriñ ci turu sëriñ Cheikh Abdou di sant ci sëriñ Mouhamadul Amin Baara mi ndax kenn deful ci sa kër lu gën lii maanaam li gënal sëriñ Touba ci biir Touba mooy jotaay bii amoon mooy jotaay bii ñuy ndokkeel di sargal ku mokkal alquran kon dañu lay ndokkeel waaye dañu lay ñee ndax kër goo xam ne borom daf ko maanaam li li gën li gën li gën ëpp solo ci lu ñuy soxla ci ci barab moom lañu fay def tagay saytu loola ndax kilifa gi nekk bopp ci ci bopp kër ndigalam la ñuy la ñuy séentu ci lépp kon lu mu yombal mu yomb lu mu jafeel mu jafe kon taxawaay bu rafet boobu nga xam ne suñ bi taxaw nga ci ñi ngi la ci ci turu sëñ bi ñi ngi la ci sant bu baax a baax di xam ne it nii rek la war a demee ndax maam yi li ñu ndamoo mooy sët yoo xam ne dañoo taxaw seen ginnaaw di taxaw seen njaboot te jàngal leen te yar leen kàddu yi daal mooy kàddu yi nga xam ne xaj na tuut nañ ci yëkkati ko ci ci turu sëñ Cheikh Abdou na mu ware waaye xam ngeen ne rek jotaay bi dafa xat xataay boo xam ne laajul guddal li wax guddu gàtt daal ñi ngi sant bu baax a baax suñu doom ji di sant bu baax a baax soxna maam xari mi mu jaaroon ci loxom di sant bu baax a baax soxna ndey Faat Silla mi nga xam ne moo ko doon jàngal. a tuur ay at waaye nag taxaw na taxawaay boo xam ne nit mënta taxaw taxaw bu ko gën a kawe kon nag dañuy sant yàlla suñu borom bu baax ci loolu yi di sof rek ay kàddu ci li Cheikh Abdoulaye doon wax te si seex naa jiitu ko ci mooy ginnaaw bu ñu santee suñu doom yi bopp sant ñi ko doon taxaw te seen Cheikh naa ngi am ci cër bu leen suñu borom beral ndax soxna Fatou Dia sa daala gone gi jaaroon say loxo ba lii àgg tey ci moom ngeen di liggéey bu kawe ndax dañuy wax ne boo jàngalee benn jigéen jàngal nga aw askan soo jàngale benn góor benn góor nga am soo gisee jamono yi tey xeeti jàngalekat yi adduna yi di sonn lool jàngal jigéen ciy sonn lu ne jurbaay mooy xam nañu boo amee benn góor benn góor te góor moom ñàkk ko waaye benn jigéen nag soo xasee am am nga aw askan ndax jigéen mooy jàngale mooy yar moo tax baykat bi ni woon al ummu madrasatun ida aadataha aadata shaaban tayib al araq bu jigéen ñi baaxee li lépp baax kon defar nga ci jiitu na mooy jëmbat alquran karim ci ñoom sëñ bi junj na ko sànq ñuy sant yàlla suñu borom baax ndax lii mooy continuité istimraar ya ndax nday mare mi nga xam ne mooy yaay yi tuuti mi tey suñu borom def bi si saal yu toogee jataayu saylu xat yi moo ko njëkk a jox ab kaamil bu jigéen bind keroog sëñ bi daa biir lool ba wax ca wax yu kawe ci tënk waaye yëkkatiwaat ka kayit ñu ko daa bëgg nga bindal beneen kaamil bindaal beneen kaamil jox mu ñaari kaamil mu góorgóorluwaat nag yemu ca waaye li soxna Ndeye Fatou ñoom def la def mooy ubbi daara di jàngale maam tuuti mi moo ñaareel doomam di moo ko ci jigéen maam jaara bàkke maa ngi ne mooy ab taawam macha allah noonu la moo ko alxaan ba ni mu ñëwee ci maam tuuti te yeneen doom ñu ngi continuer jàng waaye ma ngay continuer di jàngal yeneen tuut tànk yoo xam ne ay jigéen lañ di leen yu uuf ci lu mel noonu loolu mooy mooy junj bi dama daan faral di wax ni saa ñu góorgóorlu ci kanam tuuti su jigéen ñi mënta jàngal seen bopp yéen jigéen dootu jàngati ndax la ci nekk ci ay jafe-jafe bari na lool moo tax ñu yéem ku mel ne si seexu naa ci saytu bi mu saytu daaraam def ko daaree jigéen di jigéen ne mbooloo mel nii ñu sant baax son sëñ baara mii tey mi nga ne mooy kilifa kër cant gi nag dañ teg mu jàlle ko suñu àll yu busu mi nga xam ne mooy kilifa son mi nga xam ne moo taxaw gën a gi tey yaayam jur ko ci ànd bu nekk yëpp sant nañ ko sëñ bi ndax maam xale lu mu ca mën nekk nañ xam ne suñu Aliou tax ndax bu ko ci jëppatoon loolu du ma nekk ci kaw suuf te ku ñëw xool xale bi da nga jàpp ne xale bi fii ndeyam bàyyi ko fii la yaayam bàyyi ko tuuma dañ ko te menn mbokk mosoo fekk dara loolu nag ñu koy sant baax waaye xam nañu boppam la ko defal ndax ëttib ko suñu Aliou Bousso bu fi suñu Birahim Yaay dee daago di fi ma ko alxuraan ku xam cosaan démb xam mbokk doonu guléet waaye rawatina nag li nga xam ne suñu borom jagleel na ko ci biir njaboot gi muy ñoo xam ne alxuraan mooy seen lépp tey mooy seen lépp ëllëg ndax suñu seex naa mi surtout suñu àlliyo kon bu ñëwee taxaw surtout suñu bi day mu ko alxuraan loolu te ñaan ma loolu loolu dugg leen leelu nañ buum ca boy boy ga kon ñi nga am mbégte bu baax kàddu yi ne maa ngi ko yëgal ci turu suñu maamoor mi nga xam ne mooy sama kilifa te waroon teew jotaay bi te yitta def ko ba tax mu dem waaye nag ci kàddu sama kilifa yi nga xam ne mooy suñu seexu naa ak suñ euh, motula moom suñu àlliyo mi nga xam ne ñoom teew na ci jotaay bi teewaayu lenn ci yirif seen njaboot ñu am lu mel ni ñëw ànd ko ak ñoom kon ñi ngi sant ñëpp ci di leen jaajëfal di santaat baax na soxna yi nga xam ñooy taxawe daal yi di leen wax ne lii ñu def lu am solo la ndax jigéen saa yu jógee jëm ci lu baax rek lu baax day yomb ndax su baaxee lépp lépp a baax kon ñu ummi di jaajëfal tamit géey mi nga xam ne fi jóge sànq di soxna daara yor daara macha allah di jàngal ay gone di leen yar kon tënk bu gàtt li leen ne mi ngi yëngu ci alxuraan karim ci lépp lu yëkkati alxuraan loolu ñor ko am ci mbir ci war koo teewe ñu ngi nuyu yàlla salaamaaleykum wa rahmatulah te def ko muy mag tey magum lislaam te bis bi nga xam ne moom lañ ko lebal mu dund ba fay ko si ay ñeneen ñeneen ñeneen ci bàkki Sëriñ Tuubaa may sant tàmbale sant gi nag ci sama ñaari waajur soxna Awa Bousso ak Sëriñ Mbàkke Ndiaye rahmatullahi alayhi di sant baax sama waajur wu jigéen wi nga xam ne mi ngi ci jotaay bi toog nga xam ne ginnaaw bi yàlla wooyee lépp lu ma man rek moom moo tax ndax bi sama waajuru góor di fi jógee fekk na booba ñu gën a nekk ay tuut tànk sunu xel dëgëragut sunu xel ñoragul mu jàppale ñu ba ñu agsi fi nga xam ne fi la ñu agsi bi loolu jàllee maa ngi sant sama waajuru góor di sëriñ Mbacke Ndiaye nga xam ne bis bii bis bu lum lu ko gën a fonk la ma nga ca ad ad euh, àllaxira waaye xam naa ne bis bi moom yëg na ko tey ndax bis bi day bokk ci li gën gënoon a fonk ci àdduna ndax njabootam gi ñi ci ëpp muy góor muy jigéen ñi ci ëpp mokkal na alxuraan ba wattu ko man nag suñu borom dafa dogaloon man moom jotuma woon a mokkal wax dëgg yàlla moo tax bu sama doom ji sama xol day sedd ndax day mel ne dabali na ma ca sama morom ya xam ne rawoon nañ ma moom dabali na ma fa may ñaan yàlla yàlla guddal fanam te dooli ko wér di ñaanal nag sama borom kër signal yu busoo nga xam ne moom fi mu teg maam tuddi da koo xool jëmi sëñ Murtada Mbàkke la ko xoolee maam tuddi moo ko gënal doomam yi nga xam moom la jur ci biiram billaahi asim noonu mu mel ci moom nag nga xam ne mës ta jaaxle dara wuti ko ca baayam wax dëgg yàlla lu mu wax mu ne baay bul dem ca sa baay lu sa loo soxla man maa la ko war a defal noonu la njabootu sëñ Mataraali yëpp mel ci moom nag di tàmbale ci sëñ Baara bu sa mi nga xam ne mooy kilifa batt bi kilifa jotaay bi noonu la mel ci maam tuuti Mbàkke ñoom ñëpp dañ koo bëgg bëgg ba xam fan ko teg tëguñ fa seeni doom li muy tuuti tuuti sëriñ Tuubaa la ñu xool ci moom ba ma waxee loolu na wax naa ci njabootu sëñ mataraali wi gépp di delluwaat nag di santaat bu baax a baax sëriñ Mamour Ndiaye mi nga xam ne mooy sama taawu baay nga xam ne mooy sama baay maa ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi ma taxaw di sant nag Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ma xool ci moom danga ma mere ndax sëñ Fall dama seetaanu ci dara bëggul ma wéet bëggul ma jaaxle bëggul ma ma am benn lu may naqari musta mus bu ma xoolee sama kanam yërëmtalu rek sëñ Fallou lu mu yëkkati dana ko dana ko teg sama loxo dana ma woo ci wetam dana waxtaan ma dina ma dëfal jàppale na ma sama njaboot kon maa ngi ñaan yéen ñëpp mbooloo mi nañ ma ñëpp ñaanal sëñ Fallou ginnaaw bu loolu wéyee nag ba tey maa ngi sant sëñ Mourtala Ndiaye mi nga xam maa moom ñoo bokk benn baay muy sama rak kera ba xamee ne maam Tudd Mbàkke mi yaayam na ko teg ko ci sama loxo damaa waaxuwaat ba ca sëñ Mourtala ma teg ko ci loxoom ne ko damaa bëgg mu jàngal xoraan sëñ Mourtala ne man de maam tuddi mii damaa bëgg mu dem ca day Fatou Sylla ndax Ndeye Fatou Sylla de mën naa jàngal jigéen te wax dëgg yàlla moom moo ma jot fan yi sax damaa desee wér ma ne ko man foo ko teg rek foofu fu la doy doy na ma man mu yëkkati ko teg ko ci loxoom Ndeye Fatou Sylla Ndeye Fatou Sylla nag wax dëgg yàlla man awma dara lu ma koy faye xanaa damay ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te dolli ko ak wér ndax Ndeye Fatou Sylla am na soxla lool ci jàng maam tuddi Mbàkke mi yàqal na ko ay téem yu baree baree bare ba daaw bi ñu demee Porokhane maam tuddi dem Porokhane dafa a la damaa woo téléphone di wax ba jooy man tam ma jooy ne ko a allah rabbi day maam tuddi Mbàkke mi dara lu yàq njàng mi du jóge ci man man dama yàq njàngum gone ndax samay waajur yàqul woon sama njàng xëy na sama xel neexutoon waaye samay waajur ba nga ba ko day tëdd ba day day téye maam tuddi ca kër ga ca daara ja ba timis jot mu ne ko dama tëddaat ci sama wet mu tëdd ca wetam wax ne ma yow de maam tëdd gone gu jigéen nga di ko bàyyi muy ma ne leen kër Ndeye Fatou Sylla gam fanaan moom fanaan sama lal bi ñoo naa bu dee moom rek am dara lu ma naqari di sant nag seen ñoom dañ daan dañ jël seen darab yi weex taal di ko lalal maam tuuti Mbàkke yëg wax musuma leen koo wax waaye damay waxtaana sama doom man doom ji ma yor damay waxtaana yow ci néeg ne ma dañ may lala ay ay ay darab yi set di ma tërala ci fañu tëral seen i doom dama jox ay darab may sàngoo loolu bu fekkoon amu jëw woon na wax sama xel du daal dinaa ko jël si kon maanaam lii lépp du am kon sant naa leen bu baax di sant wàcc ci leen gépp sëñ Moutaba ñoom ak sëñ Seexuna ni ngeen ko jàpp yëg naa ko di bere ak cant nag sëñ Seexuna Gabon sëñ naa sama rakk la ñoo bokk yaay